gis nañ ko ci tele bi moo ngi toog ci président de la république bi mu fay jógee daanaka trois heures et mu jot na bon mu dafa sonn mu yabal nag xalifa Ndiaye mu boole ci ak euh, frère madame Kassé muy muy chef de cabinet ak alaaji Gagne Faye mu mu euh, kii Ibra Kassé mu ñëw nag nee bis bi moog sëñ Souley ñoom ñoo ko bokk ticket moo yabal fii ñoom xalifa ànd ak kii kase ak alaaji ngañ fay bi ñëwee fii nag fekk nañ fi kilifa gu mat kilifa ñu koy wax Serigne Moussa jaane nekk ca dakaar bokk ci cheikh yu mag yi nga xam ne tey dañoo nekk ci waa kër Serigne Touba man dama doon ubbi rek ma bàyyi Serigne Souley eggale ngërëmam euh, kii xalifa euh, eggale waxee ba bare ngañ sànni ci sëñ Souley tëj loolu daal mooy suñu kàddu moo yebal fii délégation bi mu ne lépp lu sëñ Souley am ñoom ñaar ñoo ko bokk ndax sëñ Souley xaritam la wóllëreem la te moom mbiru diine xeebulu kenn dara lu mbiru diine woote rek moom dina ci dem waaw jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatullah fa tabaarakallaahu ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci Seydina Muhammad muy sangu sang yi ñu ngi lay ziyaar di ziar teg sunu nuyoo ci deretu Seydina Muhammad bi ñu fekk fii mu Cheikh Sidil Muxtaar Kunta di ko teg wàccuwaayam di ko ñaan ci barke maamam bis bi ñu dugg ci bismillahi rahmaani rahim yàlla nañ ko eggal ci alhamdulillahi rabbil alamin di jël sunu nuyoo di ko teg ci muy sëriñ jaane mi toog sëriñ Moussa jaane muy kenn ci ki nga xamante ni moom fi fekk muy ku tedd di ñëñu alquran di borom xaasatan mu toog nit suñu wet muy sëriñ Souleymane Souleymaanul Amr ñu ngi lay ziyaar di la ndokkeel di la teg sa wàccuwaay man nag dama ñëw ci tànki kilifa ak ay kàddoom muy maloon le ministre Adja Ndeye Tické Ndiaye ministre de l' économie numérique et de télécommunication porte parole gouvernement bi moom moo fi yebal ma ànd ak ñi ma àndal ñi ma àndal nag mat nañu alaaji ngañ faye ngi ni toog nekk sama kilifa yàgg maa conseillé ànd nga ki nga xamante mooy magu chef de cabinet mi ngi nee toog di Ibra Kase fekk fii suñu collaborateur muy alxaaji Omar Dem muy nit ku baax koo xamante ne mën naa ne lépp lu xew fi ma ko coordonné ba li am tey am tey kon Omar jërëjëf sëriñ bi ñu ngi lay sant madame la ministre mi ngi lay nuyu bu baax ni mu woon soo demee ginnaaw ba nga ñëwee ni ko fa fekk muy direct yonent yàlla Muhammad na nga ko teg sama wàcc waay ci moom nuyu xalif général Baye Alaaji Cheikh Seck yàlla nañ fi yàgg téwér wala si Ahmad Tidiane Cheikh wala si Ahmad Tidiane Cheikh Seck yal na yàlla dolli ko wér ak wérli ak njabootuma moom leen waaye rawatina yow madame ministre ni ma soo demee neel sëriñ Souley ñoom day maa ngi digg maa ngi yëg seeni ñaan ci man yoo xam dafay jóge ci seeni dënn du dugg ci réew mi te lu dugg ci réew mi dugg ci man mii ndax yàlla dogal na porte parole gouvernement bi moo ko yor te kon bu fekkente ne jot wal woon ak seen ñaan mën naa xëy wax lu ëpp te boo xëy lu ëpp mën naa juutal gaal gi mu ne comme yàlla mi ngi suturaal jaam suturaal naka bañ ko falee ba tey gisul lu muy tiit wala lu muy ragal yaakaar na ni bu baax xam ni seen barke ñaan ma nga ca biir mu ne woon na nga ne ma nuyu Souleymane Sëriñ Souleymane bu baax di ñaan yàlla nag bésam bii ñaanuma yàlla bés bu ne mu ñëwati te yabalu ma une forte délégation ba mu xam nekkal fi yàlla nekk fi alxuraan rek moo wóor mu ne ñu ngi lay sant di la gërëm bu baax ba mu ma waxee laa ko ne sëriñ Souleymane dey su ma xamul man man xam na du ñëpp lay xam waaye man xam naa ko ndax ko yoroo ci keppaar Alxaaji Idrissa Gay mu yëkk ci doomam Jibril jox ko Alxaaji sa ba mu nekkee tuut tànk ji bi xam na ma léegi wax naa ko ak jibi jibi sekk ma ni ko muy bàyyi jibi ñu nekkoon ci kadara yi sa kon wëllëre woowu mu jël yëkka ci dog itam jox alxuraan ba résultat bu am ci alxuraan tey jii bàyyi jibi am ko bàyyi jibi amu ko moom moo ko am yàlla toogaayam bi moo tax ak bëgg kër maama Mori Ndaak bëgg waa kër rasulullahi kon sekk ñu ngi lay ñaanal yàlla bu mu nekk sa mujjeelu daje ak jaami yàlla yi ndax génn nañ gis nañu ruq bii nga dugg soo la neexoon na ca peggu tali ba def li gaa yi def waaye defoo ko da ngaa dugg ci ruq bi di fi rëkk naasiril xaq la xaq di fi rëkk turu yàlla di fi sant yàlla di fi bàkk yont yàlla muhammad ba lu lay fekk fekk la fi tey kon ñu ngi ñaan ci sa barke maam nga ñaanal madame ministre ma yi ko président xool ba takkal ko ko yàlla bu mu ci gis lu muy tiit wala lu muy ragal madame la ministre nee na ma wax la ni la Omar Dem mii nit ku baax la nit ku bàyyi xel këru diine yi la nit nag bu fekkee da nga ne nekk ak moom mu bàyyi xel këru diine ndax yow la nga mën a def la Omar mën a def mënoo koo def yow li nga man yaa ngi ci mooy leen bàkk yàlla sant yàlla saa su nekk toog sa keppaar mais omor dafa boole ñaar yëpp mooy toog fa mu toog ke ruqam bu ngeen xewlee mu jige ci ruq ba génn dugg ci gaa yi baax ñi leen sëriñ yi xewle nañu kon ñu lay sant sekk di la gërëm di ñaan yàlla nga ñaanal ñu réew mi am jàmm ñaanal ko président Macky Sall at mu bees mu dugg yàlla defal ko ci ndam defal ko ci sutura defal ko tawfiix ci barke yonent yàlla Muhammad ci barke ma moom ndaag borom ba muy kàddu yoo xamante nag sant la ak ngërëm mu nag soo yeggee na nga ne sëriñ Suley lii maa ko barkeeloo ci bis boole ko xeeb lool wax dëgg yàlla te bu soñoon moo ñëwal bopp ci incha allah jamono dana doxi bés ba mu ñëwal boppam wane taxawaayam wane si taxawaay ci diina ji loolu moo nekkoon kàddu yi ñu ngi sant ñu ngi gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. wa ala alihi wa ashaabihi wa zurriyatihi wa min tabi'ahum bi yi ñu ngi leen di nuyu ci turu lislaam Cheikh xalifa dana wax ni eh, yónnent wax dëgg yàlla xëy na fonk sëriñ bi la waaye kenn sa wax ku ci tegaat rek xanaa day yokk xar mi kawar waaye wax dëgg yàlla mat na jekk na yell na ci kin ko kin indil muy teraanga Adja Ndeye Tické li mu wax ni àndal ak Omar ak yow Alaaji Ngañ Fay ngeen ñëw ci sëriñ Souleymane Seck ngeen won ko ni ko ittee mooy sama ittee ca nit doo ko xeebal bisam xeebaluma ko bisam waaye délégation bi rakki directeur euh, chef de cabinet ak man mii ak yow Cheikh Khalifa Ndiaye ak Omar wax dëgg yàlla doy na sëkk kon Serigne Souley dama ni yëf yi dafa tombe ndax dama gis ni avant may nuyoo ma gis ko sang bu baax bi Alaaji Ala Moussa Diané mu Cheikhul Khadim toog nii ah, mat ko sëkk nag li nga wax rek ndax dañu wax ne ak tagg yonent bi rek ko yelloo waaye wa anal fadla bi yadillaahi yuti man yasha yàlla mooy jox ngëneel ku ko neex mu fa tabarakallahu muy ku yàlla baaxee daje nañu seen kër sëñ Moussa Baara mu sëñ mu sëñ Baara ca bisam ba fa tabaraka ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax waaye teg ci nag ah, ki nga xam ni xaddu mu sorofa mooy setu yonent yàlla Muhammad bii nga xam ni fa tabaarakallaahu yonent yàlla Muhammad nee na bu ngeen toogatee tey seen i samay sët dee leen leen jiital muy ku mat set buy Cheikh lu Mokhtar Kounta mii nga xam ni fa tabaarakallaahu xayrul min xayrin ay maamam ba ci yonent yàlla Muhammad waaye fekk fi nag ki nga xam ni fa tabaarakallaahu asul xaalis mooy Serigne Ñang alxuraan nga xam ni moom ku ko gis yaru ci yaram ak deel ak teel bëgg maam Cerno Ibra Faati lool bëgg fa tabaarakallaahu sopp Sëñ Sulee lool tabarakallah la ngi ñu ngi lay jox sa wàccuwaay bu baax ak mu ñun fi fekk ah di di la xamal ni nag ah, wax dëgg yàlla ah, mbir mi aleykum mbir mi xalifa li ci war a wax liñ ci war a wax yëpp njaay wax nga ko xanaa di yéene ma rek kàddu waaye wax dëgg yàlla ah, madame la ministre bu la tegee ci wetam def la porte parole pour les affaires islamiques ak fu mu mënti jëm nga ñëw nga ànd ak man xëy na nag maa jox cëru mag rek waaye wax dëgg yàlla wax ji li ma ruma cee woon a teg dara waaye nag fii ñu ko indi muy Serigne Souleymane mii Seck ah rakkam it ñëw na egsi na tafsir ma dikk kii leen fayee maamam borom jumaa ji nga xam ne dafa sa si sëñ Souley ca tërakuku baax lool Seck moo doon daal ñu ngi lay jox sa wàccuwaay tafsir ma dikkee bu baax ah di la wax ne nag fii ñu ko indi fii ñu ñëw ci teraangam ji nga xam da ko yor ndax dañu wax ni ñaar bu ko xeeb. bul xeeb posen bul xeeb mukk mukk mukk mukk teraanga teraanga lu mu tuuti tuuti mën naa regg as gor posen nag lu mu tuuti tuuti mën naa rey as gor kon fa tabaarakallaahu sunu xaalixina kii ñu ko indi nag muy doomu wàllu yu nga xam ni fa tabaarakallaahu dégg naa de nangu naa ci nit mu ne ah cene ba li muy yaatu yaatu yaatu yaatu waaye sëriñ Jibril Sekk yoonu muy jaar ba am yàlla ah do doon amul amul ko fa jaar de waaye bariwul ñu fa jaar bokk dem ba am yàlla Cheikhul Murabbi kon bu ñëwee ci doomam ji nga xam ne daf ko doon doon ko waa boo nuyoo rek li ngay jëkk seen mooy jumaa ji li ngay jëkk xool sa wet mooy mooy mooy institut islamique xale yi jàng li ngay xool sa wet mooy lan jàkk yeeg jumaa yi ca loolu mooy wàllu doomu soxna kon Ndeye Tické ñu ngi ñaan ci barke sang yi ñu fekk waaw sama ñaan sax tuuti na ci waaye bo sëriñ bi dina wax léegi ma li mu yootu te sa président de la république son excellence yàlla natt ko teg ci teg tegi réew mi ci loxoom mu wóolu ko def ko porte-parole gouvernement mu muy muy xentu diine ah ñu ngi ñaan suñu borom ci barke barab bi suuf si nga xam ne dafa mandi lislaam mandi diine ñu ngi ñaan suñu borom yàlla na yokk ci barke sëriñ Souleymane mi toog ndax kii kat wax ci man wax ci moom yomb na ndax sama sama digg ak moom ah ajumaakub gaaw la benn bis dox fi ndax sama maam moo daan raamal maamam yàgg na boobu judduwuma samay bàyyi di raamal ay ay bàyyam man man miit fii lu fi ne ko moom waaw lu xew fii rek maa moom kon fa tabaarakallaa Ndiaye da ngaa baax rek jox ma kàddu te it bu fekkee muccul waaye li nga wax ak sant ak malta ak malta jamian yal na yàlla boole baal ñun ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa mbokk yi maa ngi leen di nuyu nuyoo bu tedd bu ànd ak di leen ziar ci bis bi nu daje ñun ñëpp fii tey ku fi ñëw ku ne bés bee la tax ñëw muy bisu lislaam fa tabaarakallaahu di bisu nitu yàlla ñun amul solo waaye nag kiñ ñu koy koy defal moom am na solo digg ndax diggam ak boroomam ca mbaax ga ci yàlla ca xam-xam ba ca tedd ga ak teraanga ak tabe ga yàlla def muy sunu waajur yar nu eh, jox nu ndigal ci lii nga xam ne moom ngeen fekk nu ne muy daaray alquran ñu def ko fii sanc dëkk bi muy Medina Cenaba ñu tuddee daara ji Serigne Jibril Seck mu ñuy ñaara di suñu waajur daaray Serigne Jibril Seck ci Medina Cenaba ci Touba gi yor fi daara ji yor fi jumaa ji yor fi dongo yi di fi julli jumaa di fi julli juróomi waxtu yi di jàng alxuraan di ko jàngale ñu woote tey jii bis bi pour jàngal suñu maam ñaanal suñu waajur sëriñ Jibril Seck ak suñu waajur wu jigéen soxna Aminata Ndour ak ñi ko bokkal ñépp ak mboolem deret amarindaa yi ne ci biir suuf waaye mboolem kilifa yi diine yi waaw bàyyiwuma kenn ñëpp a ci dugg bu ko yàlla nangoo yàlla na ko wesaare ci ñoom kilifa yi diine yooyu ci seen ruuya ak seen njaboot yi ñu bokk. Eh, sëñ eh, si di eh, Muntaxa Mbacke xalifatu am li taifatil muridiyeen léegi la fa ndawam jóge sëriñ fàllu Mbacke mu yebal ko jox ko teraanga yu bari mu indi ko ci bis bi kilifa yëpp yónnee nañ fi def fi ay teraanga yàgg na noo jokkalante ak ñoom ay teraanga nag kilifa yi diine yi li nga xam ne nag ginnaaw bu ma leen nuyoo yéen ñi fi teew ñëpp kenn ku ne sa tur ak sant yow sëriñ Khalifa Ndiaye oustaz ñu ngi lay nuyu. di la delloo nuyoo bu rafet bii ngeen indil mu jógee ci soxna si di ministre madame Tike nekk suñ jigéen lu yàgg ñu jaxasoo ci lu wér maak Serigne Sidi mi ak moom ak El Hadj Cheikh yàgg nañoo jaxasook ak ñoom ndax jaxeer mi rakam nekk naa Espagne ay weer yoo xam ne mooy toggee ci këram dinu ñu indil maak El Hadj Cheikh Diop wóllare woowu moo tax nu xamante ak moom. xamanteeg moom ci sëñ Sidi xamanteeg moom ci kër gi ba lu fa xew nu dem daje fa ak soxna Tické eh, ba jaxasoo ak moom wëllarante ak moom diggam ak sëñ omor demit sëñ Omar di kenn ci nun daara ji daaraama doomam ngi fi tudde nu doom bëggal nu boppam te ni mu mel ci soxna Tické xam naa ko wallaay bu soxna Tické yónneewul woon it moom mu ñëw fi teew fi teewal ko dana mel ni ci man soxna soxna si ñëw la ministre bi ñëw la Euh, ma di la wax ni boo demee nanga ma ko nuyul ne ko teraanga bii de fi bi mu koy joxe fekk ni fa ay nit yàlla. kon yàlla mën naa nangu suñu ñaan. ndax sëñ moo Mokhtar mi ngi di xalifa Baye Sidi Lamine. sëñ Moussa Diané nga ne kaw lal ba toog di doomi di nit ku baax wóolalante ak man teraanga yi moom ma ko indil ak yeneen sëriñ ma dikkee ngi nii di sama rakk nu bokk lépp élimaani cana baa nga nee toog cana ba gaar tabaarakallaahu Eh, sëriñ moodu Niang di sëriñ daara yor daara alxuraan ci Thiès mi ngi nii toog ñu baax ñëpp a ngi toog sëñ Ablaye sekk borom baax di sama njaboot mi ngi toog kilifa yaa ngi ci biti eh, mbooloo mi bari nañu tubarkalla te mbooloo maa ngi ñëwit nag ñu baree ngi ñëw tubarkalla <coughs> eh, soo demee nga nuyul nu ko ne ko lu nu fi tey lu nu fi ñaan lu nu fi am yàlla ko yàlla nangu te boole nu ko ñoom. ñun suñu aada la fu ñu jullee ci jumaa ji su ma joxee dog ñaanal suñu waajur yi ci biir suuf ak kilifa diine yi su ma paree damay joxe ñaan ñaan jàmm ci diine ji ñaan jàmm ci réew mi ñaanal kilifay diine yi ñaanal kilifay aada yi loolu kuy toog fi sama wet xam nga ko dañ koy def na ngir yàlla fii nag ba ma ko sancee ba tey tey la fi am ministre Massa yónnee indil ma teraanga bu dul Mansour si ministre lu nekkoon sama goro nekkoon sama wëllëre Adja Ndeye Tické la ñu fal e ñun doomi soxna yi ku ci xewle mu yebal fa ay ndaw boole ca teraangam loolu moom mën naa ko wax ndax moom rek moo nu ko defal yàlla na ko yàlla fay xanaa soxna président e, Marème Faye Sall mas naa bàyyi ma dikki mi dafay ñëw ni ma soxna Marème yónnee na la tonu ceeb waaw te kon teraanga boobu la ma sàmm bu jógee ci nguur gi ak bii tey waaw kon nag lu rëy ci nun la ne ko li mu def lu rëy ci nun la ndax àdduna kat eh, ku la yëg boole la ci la mu ne yëg la yónnee ci yow ay ndaw yu tedd ay borom xam-xam sàkku sa ñaan teral la moo mënatoo ko fay waaye nag ne ko luñ fi ñaan daal yàlla na ko bokk waaw dafa bokk ko borom réew mi yàlla defal leen jàmm defal leen sutura defal leen xéewal li mu bëgg ci li ko président dénk mooy ab sakk am ci ndam am ci sutura am ci koolu kóoluteef am ci xéewal am ci yokkute yàlla na ko yàlla defal waa te bépp mission bu mu doxal président ci réew mi yàlla na àgg ci xoli jaam yi ba ñëpp kontaan ba ñëpp bëgg ñun ñëpp ñu ànd bokk bëgg-bëgg di ñaanal réew mi jàmm di ñaanal suñu bopp jàmm ñu ngi leen di sant bu baax a baax ma jox sama rak sañ bi dikk mu sànni ci gàdda. sëriñ bi day da nga baax rek waaye kàddu yi mat na kàddu yi mat na sëkk dara desu ci xanaa ñu ziar mbokk yi fi nekk yëpp rek. di ñaan ci yàlla mi nga xam ne mooy boroom lépp yàlla na yàlla dolli jàmm ci réew mi président de la république yàlla na yàlla dooli ko jàmm yal na yàlla gën ko jàppale ba yéene yi mu am ci réew mi mu àgg ci jàmm ak salaam ndax kat kilifa yombul bu la yàlla joxee kilifa goo xam ni yitteem yépp mooy njaboot gi njaboot it war na ko ñaanal ndax ñaan rek lañ am mooy li Serigne Souleymane wax léegi kon président yàlla na ko yàlla dolli jàmm dolli ko kattan ba yéene bi mu am mu àgg ci jàmm ak salaam ca it nag mu bañ a fàtte daara yi ak sëriñ daara yi ndax bari na luy dox ci réew mi li koy doxal alxuraan a koy doxal ci ñooñ ñooy taxaw alxuraan na leen bàyyi xel ca geesu leen bu baax ca bàyyi leen xel ca fàttaliku leen ndax ñoom kat li leen war ñu ngi ci kon ñu ngi koy ñaanal waaye ñu ngi koy ñaanit mu gën leen bàyyi xel bu baax a baax sëriñ Souleymane jërëjëf yow fii képp ku la fekk rek loo ko ñaanal incha allahu dina nangu ndax foo waajal la foo waajal la ci côté yëpp ndax euh, am na ku ko wax léegi ci waxtaan wi yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo wax ni xayrukum man taallama alquran wa allamahu kon bépp barab boo xam ne alquran lañ fay jàng di ko fa jàngale benn barab gënu koo sell ci barab yi gën a sell ci la bokk kon yal na yàlla gën laa jàppale ca it waxuma la alxuraan ji ñu fiy jàng waaye teraanga yi nga fii teral doomi aadama yi ak julliti yàlla yi euh, loolu rek bu la ko yàlla fayee àdduna bépp xaj nañ ci yàlla na yàlla gën laa jàppale yàlla gën a dolli si sutura lépp loo am ci nit ñi nga ko delloo yàlla na yàlla gën laa jàppale bëggoo dara soxlawoo dara nit ñi rek nga soxla nit day ñëw nga di ko xool ba nga yëkk ci loo xam boo ko joxee ñëpp dañuy dañuy yéemu fekk yow lu tuuti la ci yow kon képp ku la fi fekk di la teral kooku ku yàlla nar a la jërëjëf Seck sëriñ xalifa jërëjëf ñu ngi lay sant di la gërëm ci sa yar ak sa teggin ak sa dal soxna Ndeye Tické moom man dama wax ni Ndeye Tické daf ma yéem parce que Ndeye Tické yitte bi yàlla def ci moom mosuma gis ci benn politicien bu mu nekk Ndeye Tické dafa baax dafa yaatu dafa bëgg nit ñi bëgg Cees Ndeye Tické yaakaar naa ne euh, li muy yeble lépp sax kenn mënu ko ko yëgal lu mu dégg rek wala nit ni ko dara xew na dina ca yeble ca loolu nag moom lañ ko sant parce que nit ki bu bëggee su waree soxla nit ñi war na jege nit ñi Ndeye Tické ku baax la ku jege nit ñi bu responsable yëpp meloon ni Ndeye Tické président bu tëddee day nelaw nga santal ñu ko gërëmal ma ko bu baax sëñ Sidi Mokhtar ñu ngi lay nuyu di la ziar ki démb rek ñu ngi waxtaan saan ba yàgg sëñ Omar dem ni am na ay jikko yu ñu doon lim ci nit ba ne jikko bi gën ci nit daal mooy puso sëñ Omar jekk-jekk yëkkati loo xam ne ah jikkooy sëñ siidee ngoog sëñ siidi ñëpp lu yéen jàmm ci ca bëggul kenn meloog kenn bu xamee ni meloo ngaa nit sax boo ñëwee ci kooku lay waxtaan ak yow te loolu mooy jikko yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi ñu ngi nuyu imaam di ko ziar bu baax di nuyu sëñ jaane mi di nit ku baax waaw nga xam ni waxtu wuy ñëw fi teraanga yu rëy lay jël andil ko Serigne Souleymane te Serigne Souleymane lépp lu ko nit defal euh, daanaka àdduna bépp nga ko defal ndax lépp lu ko nit defal lu rëy rek defal na nit lu loolu kon ñu ngi koy sant di ko gërëm di nuyu sëriñ maam Alioune Seck mii door aksi di xalifa Baye sëriñ Ousseynou Xaar sekk Baye sëriñ Ousseynou Xaar nekkoon koo xam ni ñëpp a jëriñu ci moom fu mu nit mësaane ni ci àdduna rek bu bàyyi Ousseynou àddoo euh, dina dugal sa xol loo xam ni jar na ay milliards. parce que nit ku ko taqale ak gu rëy la ko digganteem ak boroomam dimbali nga ko te moom da daan tarbiyee nit ñi ci benn minute. kon suñu maamaal yàlla yàlla doon la jàmm doon la sutura ñu ngi sant di gërëm kàddu yi matoon na bu yàgg sëriñ Souley moom moo bindoo noonu dafa baax rek euh, sëñ mun ñang ñu ngi lay nuyu di la di ñaan xasaayid yi ngay jàng ak alxuraan ji ngay jàll yàlla na yàlla wisaare ko ci réew mi ba ñëpp jariñu ci ndax loolu njëriñ rekk la ñu ngi sant di gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.